leen moo ñu wan ginnaaw jeex jàmm lañ. Baye Mandiaye jeex jàmm moo ñu wan ginnaaw Baye Mandiaye lañ jàkkaarloo ñu ngi lee waatoo ñu ngi lee waatoo diggante Baye Mandiaye ak jeex jàmm ñu ngi lee waatoo Baye Mandiaye jeex jàmm ñu ngi lee waatoo Baye Mandiaye lañ jàkkaarloo jeex jàmm moo ñu wan ginnaaw moom ngémboo ngémb lu vert weex am lu vert. ma Ndiaye ma Ndiaye jeex jàmm bii mooy quatrième combat de la soirée Baye ma Ndiaye ñemeeb na waaye demul Baye ma Ndiaye jeex jàmm Baye ma Ndiaye jeex jàmm ñu ngi lee Ayma Ndiaye Jeex Jaam Jeex Jaam doon na Ayma Jeex Jaam doon na dooraat na Ayma Ndiaye fayu na Ayma Ndiaye Jeex Jeex Jaam jàppante loxo dama kal na ko kal na ko la ilaaha illallah kal na ko mais demul ma Mandiaye jeex jàmm Baye Mandiaye jeex jàmm waa Kër Pelès la waa Kër Pelès ay yuuxu noonu ñu ngi naan mboolu mbooli Baye Mandiaye jeex jàmm kalaat na ko jàppante sengoon Baye Mandiaye jeex jàmm Baye Mandiaye jeex jàmm ñi ngi xeex Baye Mandiaye jeex jàmm ñi ngi xeex Baye Mandiaye jeex jàmm Baye Mandiaye jeex jàmm Baye Mandiaye jeex jàmm Baye Mandiaye jeex jàmm dóor na Baye Mandiaye dóor na Baye Mandiaye fayu na jeex jàmm fayu nañ jàppante nañ Baye Mandiaye am na ñaari ngeem Baye Mandiaye am na ñaari ngeem ci côté saako ya Baye Mandiaye jeex jàmm jàppoo nañ Baye Mandiaye nga jàppante loxo ci suuf Lamine Ndiaye jeex jeex jàmm arbitre nee na ngeen bëre Baye Ma Ndiaye jeex jàmm jeex jàmm nga koy rokkos wëndeel na ko wëndeel na ko mais demul bien joué yeex jàmm yëngalu ko yëngalu ko waaye waa Gueule Tapée sa ngi yëngal mën a bëre yeex jàmm dafa mën a bëre dafa mën a bëre yeex jàmm Baye Mandiaye ay ma Ndiaye jeex jàmm. combat tactique la. ay ko jàllul. wéyale na ko waaye jàllul. wéyale na ko am na ñaari loxo. mi dóor. mi ngi doo ci suuf Lamine Ndiaye ngi doo ci suuf da ngay bëre ca suuf Lamine Ndiaye jeex jàmm Lamine Ndiaye jeex jàmm wow wow wow ñaari mbër yaa ngi lay too arbitre sifflé na mi ak Jeex Jàmm Jeex Jàmm moo ñu wan ginnaaw Baye Mandiaye lañ jàkkaar lool Jeex Jàmm Baye Mandiaye ngi jàkkaarloo ñoom ñaar

Adama Ndiaye jeex jàmm doon na doon na mais jàllul Adama Ndiaye jeex jàmm Adama Ndiaye jeex jàmm ñoom ñaar di tamante baaraam damante baam kal kal na ko mais demul Baye Mandiaye jeex jàmm Baye Mandiaye jeex jàmm def na mais jàllul Baye Mandiaye jeex jàmm arbitre arbitre arbitre ay arbitre nee na ngeen ñëw si digg géew bi Ibrahima Ndiaye numéro jeex jaam Ibrahima Ndiaye jeex jaam ñu ngi leewaatoo leewaatoo bu baat dóor na ko dóor na dóor na dóor na ko ñaari coup yu daal Ibrahima Ndiaye jeex jaam Ibrahima Ndiaye jeex jaam Ibrahima Ndiaye jeex jaam Baye Mandiaye jeex jàmm ndax du am doomu daanu Baye Mandiaye jeex jàmm daa mel ne Baye Mandiaye dafa bëgg a jeexal combat bi waaye jeex jàmm ngi ne teg di ko dégg ngi lee ñoom ñaar ar bi sifle waat na combat bi avertissement avertissement na leen ñoom ñaar ñëpp ku ne am nga ñoom ñaar ku nekk am nga benn avertissement arbitre sifflé waat na combat bi diggante Baye Mandiaye ak Cheikh Thiam nee na ngeen bëre bu nekk am nga ñaari avertissement bu nekk am nga ñaar bu nekk am ñaar avertissement yi baaxu si yéen Baye Mandiaye jeex jàmm Baye Mandiaye cokkaas na mais demul jàpp na songoo waat nañ Baye Mandiaye jël na jeex jàmm jàppaat nañ comme ni ñu Baye Mandiaye jeex jàmm Baye Mandiaye songoon nañ donc jeex jàmm ñu dóorante si suuf ba jeex a ngi dóor kal na ko plaqué na ko mais demul plaqué na ko mais demul na ko ba koo mu bañ Baye Mandiaye. fii caxabal war na fee mën a demul wëndeel na mais demul. ah ñaari xale yaa ngi bëre de. ñu bëre de rëy ñoom ñaar ñu ngi bëre ñu bëre ñoom ñaar ñaari xale yaa ngi bëre lu rëy. arbitre bay jàmbur mu bëre Baye Ma Ndiaye jeex jàmm Baye Ma Ndiaye jeex na arbit àtte na bi arbit àtte na bi demaat nañ pause dem nañ prolongation yaay jeex jàmm Baye Mandiaye moom lañ jàkkaar lool jeex jàmm moo ñu woon ginnaaw arbit siflé waat na combat bi dañoo demoon prolongation ñëwaat Baye Mandiaye jeex jàmm ñu ngi leewaatoo Baye Mandiaye à droite Jeex Jàmm à gauche mu ngi leewaatoo ñoom ñaar Baye lu muy def nii moom Baye Mandiaye Jeex Jàmm Baye Mandiaye Jeex Jàmm ñu ngi leewaatoo ñoom ñaar Baye Mandiaye Jeex Jàmm doon na Jeex Jàmm cookaas na Baye Mandiaye Jeex Jàmm Baye Mandiaye jeex jaam Baye Mandiaye jeex jaam ñi ngi ñoom ñaar ñi ngi leewaatoo Baye Mandiaye jeex jaam ñi ngi leewaatoo ñoom ñaar ñi ci diggi géew bi Baye Mandiaye jeex jaam Baye Mandiaye jeex jeex jaam Ibrahima Ndiaye jeex jàmm at bi attewaat na combat bi avertissement troisième avertissement ñoom ñaar ñoom ñaar ku nekk am nga trois ñoom ñaar ku nekk am nga trois avertissement bëre leen bëre leen yéen ñaar ku nekk am nga troisième avertissement diggante Baye Ma Ndiaye ak jeex jàmm Baye Ma Ndiaye jeex jàmm Baye Mbaye Ndiaye jeex jaam kal na ko oh boobu doxul fàtt bi jàllul fàtt boobu jàllul Baye Mbaye boobu jàllul ñu ngi lay ñoom ñaar Baye Mbaye Ndiaye jeex Baye Mandiaye Cheikh Thiam Baye Mandiaye Cheikh Thiam loo bëgg moom ngi leewaatoo ñoom ñaar ngi leewaatoo leewaatoo bu bar ñoom ñaar bëre léegi arbitre nee na ngeen bëre léegi temps bi jeex arbitre nee na ngeen bëre léegi temps bi jeex 3 minutes leen mayoon traditionnel bi ñoom ñaar ku nekk am nga ñetti avertissement Mbaye ma Ndiaye ak jeex jàmm des si temps bi bëreetul yàlla bu jeexee avertissement fii moom bu songo amul doomu daanu amul. Baye Mandiaye jeex jàmm kës na tànk jàppante nañ loo nañ ñoom ñaar te nañ jeex jàmm bañ na dem nañ ñi dem ñi ngi dem Baye Mandiaye jeex jàmm Baye Mandiaye jeex jàmm buñ jàppante tamit kenn deful action ñoom ñaar mhm. arbitre sifflé na combat bi arbitre arrêté na combat bi arbitre àtte na arbitre àtte bi nee ngeen ñëw ci digg géew bi maxi niil nañ maxi niil lañ def ñoom ñaar maxi